ngi tudd Hadjibou Ndiaye euh, dëkk Thiès dëkk si commune bu ñu naan commune Thiès Ouest euh, nekk responsable politique nekkoon PDS nekkoon ancien secrétaire général UJTL bu commune Thiès Ouest aussi nekk si mouvement bu ñuy woowee CRD congrès républicain pour la démocratie ànd seeg les anciens secrétaires généraux de l'UJTL de Thiès. nuyu waa Thiès yëpp ñu ñuy seetaan à travers Thiès 24. Euh, di wax euh, local yi nga xamante ni euh, moom lañ jëm am nañ si taxawaay taxawaay bi nga xamante ni am nañ ko gannaaw ba ñu ba ñu taataanee ñi nga xamante ni ñoo bokk suñu mouvement yëpp taataan seen xalaat déglu xale yi déglu mag ñi déglu ñëpp ñi nga xamante ni ñooy kilifa si biir mouvement bi ba ñu leen déggoo résolution bi ñu jël daal ñu ne dans notre commune bi nga xamante ni mooy commune Thiès Ouest candidat idéal bi nga xamante ni moom la ñuy jàppale mooy euh, le candidat Ibrahima Ba donc taxawaay boobu la ñu am pour jàppale euh, le candidat Ibrahima Ba ba nga xamante ne élection locale yi ñu jëm mu mun si am ndam. poñ bi ñu gis si moom mooy waa maanaam xam nañ Ibrahima Ba am na xam-xam si wàllu mairie yàgg na liggéey si mairie nekk na adjoint au maire ville euh, nekk conseil municipal pendant des années et donc xarañte boobu ñu gis si moom si wàll ba mu dalee nekk mairie ba léegi ñu xam ni kii daal. jot na ñu responsabiliser ko jox ko bopp commune bi mu téye ko wax dëgg yàlla pour mbëbët yi nga xamante ni am na ko ci commune bi moom mu mun koo doxal ndaxte déglu nañ ko ci programme am toog nañu waxtaan ñun ñëpp si suñu biir bañ bañ ko toogee déglu ko lam ñu wax mu convaincre ñu moo waral tey jii. ñu ne nañ def suñu déclaration pour soutenir sa candidature euh, si commune bi nga xamante ni mooy commune Thiès Ouest. donte ma euh, réew mi euh, donc allié la ànd ak le pré le le maire Ibrahima Ba message bi may lancé Idrissa mooy mu bañ a def choix parce que élection yi dañuy dafa doon élection yoo xamante ni suffrage direct la tête de bi mooy doon maire. et que mu déglu population bi parce que population ñu bëri dañ naan day day day jékki-jékki tànn. mais population fi mu nekk nii dañoo doyal si yi nga xamante ni bopp yi nga xamante ni ñoo nekk ñi nga xamante ni ñoo ŋànk si euh, si euh, bopp communes yi kon donc ñuy lancer Idrissa ne ko bépp maire bi nga xamante ni moo fi nekk vraiment Ceesuwaay yi doyal nañ si ñoom nañ leen na seen ndombal tànk teg ay bopp yu bees parce que vraiment dafa fi bilan gisuñu lu ñu lu ñu liggéey lu dul ay rond-point rond nga xamante ne moom la ñu am si as néew mooy su commune euh, Thiès Ouest ñun ñu dëkk Grand Thiès depuis Senghor ba léegi rond-point xar-xar kanam ba mu amoon depuis Senghor sax moo gën euh, xar-xar bii mu am manaam garab yi nga xamante ni sax ay fleur ak yooyu yi nga xamante ni daf nañ ko si rond bi sax mënuñu ko sax arrosé donc munul arrosé vraiment fleurs yi si rond-point Normandie ba nga xamante ni léegi arène la xar yi sax fa la ñuy dugg di lekk xar yi béy yi mbaam xuux yi ñëpp foofu lañ ne te foofu mu newoon espace vert vraiment ñun ñu newoon ay xale di fa doxantu di toog si banc yi di si Normandie bi léegi amatuñu sax loolu vraiment loolu aussi mu doon loo xamante ni metti na waa Grand ba tax na daal gestion bi ñu gis ci maire bi surtout suñu maire commune nag muy commune ouest ñuy wax sa Seck vraiment mu bañ a reconduire maire commune ouest kooku man Hadjibou njaay maa ko wax te vraiment tey te 18 quartiers yi nga xamante ni ñoo ŋànk commune bi ba ñu toogee waxtaan ak ñëpp te ñëpp dañoo àndandoo ne kat sa na xam lu muy def bañ fi teg choix boo xamante ni population yi ànduñu si ndaxte mburu ak soow lañ wax kon donc na fexe ba nga xamante ni tey commune bi ñu teg si koo xamante ni tey ku mel ni Ibrahima Ba su ko fi tegee yaakaar naa ni ndam bi nga xamante ni euh, Idrissa soxla na ko fii si commune bi dina ko am et puis ñu bokk commune ak Idrissa Seck mu dëkk commune ouest ñun ñu dëkk commune ouest bokk centre de vote bokk Grand Thiès bokk lépp kon donc ñun ñi nga xamante ni mooy Grand Thiès mi nga xamante ni ñaari centre de vote la am tey waa population de Grand ñoo koy lancé appel ne ko gis ñu suñu bopp si maire bi te li nga xamante ni moom la maire bi di doxal wax dëgg yàlla depuis bañ fi nekkee presque sept de maire wax dëgg yàlla bilan amu fi éclairage public Grand Thiès bokk na si quartier yu gën a lëndëm si Thiès Grand Thiès na si quartier yu gën a salte si Thiès Grand Thiès bokk na si quartier yoo xamante ni wax dëgg yàlla kenn xamul lu muy niroo te wax dëgg yàlla soo nee ani commune bi dañu naan Grand Thiès la dëkk te wax dëgg Grand Thiès moom si wàllu bépp maire yi muy social muy lu mu munti doon Grand gis ñu gis ñu suñu bopp. moo tax nag ku mel ni Ibrahima Ba waa Grand Thiès gis nañu du tabaski du korité du koor du bépp événement boo xamante ne am na fii tey Ibrahima Ba génnewul ay moyens boppam jàppale jigéen ñi jàppale xale yi jàppale ndaw yi dimbali jàkka yi dimbali ñëpp wax dëgg loolu gis nañ ko si moom moo tax bañ toogee résolution bu ñu jël mu ne ñun nañ jàppale le candidat Ibrahima Ba. population yi comme ni ma la ko waxee gannaaw bala ñuy daf lii dañoo waxtaan ak ak suñuy su ak ak population bi. parce que euh, responsable bu ne si quartier bu mu nekk quartier bu ne am nañ fa ay responsable donc population bi si boppam ñoo ne ñoom doyal nañu si maire bi nga xamante ni moo nekk si suñu commune bi muy commune Thiès Ouest nee nañu doyal nañ si te Idrissa bu mu reconduiraat maire bi nga xamante ni wax dëgg yàlla gisuñu benn bilan boo xamante ni def na ko si commune bi donc population bi loolu la wax et donc loolu mooy mbëbatu population bi loolu la population bëgg kon Idrissa na déglu population bi di bañ a dégg ñi nga xamante ne dañ koy wax ay yeneen wax yoo xam ne seen intérêt bopp rek la ñuy wax donc li nga xamante ni mooy mooy mooy mooy intérêt population bi mooy ñu changer lu fi ne intérêt population mooy ñu jël le candidat Ibrahima Ba teg ko si bopp maire bi waaw li may tàggatoo mooy wax dëgg yàlla ñoo ngi lancé waat appel di woo ndaw ñi di woo góor ñi di woo jigéen di woo ñëpp que yii di ñëw dafa déterminé wu parce que élection locale la localité nag ñun ñi ngi dëgg ñin ñi nga xam ñoo bokk si localité bi su loolu élection présidentielle sax mun naa bañ wax ndax mun naa am suma candidat mais élection locale maanaam lii suñu koñ la lii gox ak gox la donc ñun ñoo xam fuy metti ci koñ bi muy sécurité muy environnement muy assainissement muy santé muy lu multi doon wax dëgg yàlla ñun ñoo koy téyel suñu bopp te teel bi ñu koy teel suñu bopp moo tax suñu candidat bi nga xamante ne wax nañ la ko léegi muy Ibrahima Ba dinañ ànd ak moom accompagner ko campagne ak moom ba jël élection yi ba gagné commune bi doxal ko comme ni ñu ko bëggee du doxal boo xamante ne gestion boo xam benn nit rek moo koy doxal waaye dañoo bëgg gestion boo xam ensemble ñoo koy doxal góor ñi bokk si jigéen ñi bokk si mag ñi ñëpp ndaw ñi ñëpp bokk si ba mun a ñu mun a yóbbu suñu commune fu mu fi nga xamante ni moom lañ soxla ndax commune Thiès Ouest defar na boppam ba pare commune la bu am vitrine. maanaam commune la boo am sooy dugg commune tableau commune ba ni ngay jaare Thiès noonu di dugg wax dëgg yàlla gis nañu commune la boo xamante ni am na infrastructure yi nga xamante ni privé yi ñoo ko fi def kon donc maire bu ñu fi teg war na koo mën a liggéey ba nga xamante ni du du du ñu am benn benn jafe-jafe.